jërë ngeen jëf mbokk internet sport live 221 dal leen ak jàmm gannaaw nag ba mu ñàkkee rek combat bi doxoon digganteem ak Ada moom mi di guy daal di yëgate ay kàddu wax nag lu jëm ci état de mi nga xam ne sax noonu la ko defee woon wala sax noonu la ñu waxee ne la amee woon ca jamono ja nga xam ne mu ngi doon bëri ak kii di rek rek mil atum 2022 euh, moom mbër mii di wuy ci turu guy gi mel ni nag euh, daal combat am digganteem ak Ada moom ci aku blessure la ko daal di bëree foofee ci arène nationale loole nag mu ngi ko xamle ci gannaaw euh, combat bi gannaaw entretien boo xam ne amal na ko ak ETDR Média ñooñu nag daal di ko fekk ci këram mu daal di nekk di ataaya rek mu yëkkati ay kàddu seq ak ñoom waxtaan ci combat bu nu mel. la mu njëkk a xam ne rek moo di daal euh, làmb la dama amoon habitude di gagné tey nag ñàkk naa euh, dama koy jël ak philosophie bu bari waa koñ bi fi nga xam ne fi laa dëkk dëkkam doog ñoom samay jegeñaale. Euh, ak yéen nañ ma euh, bu baax a baax ak sant yàlla gu mat sëkk euh, moom mi nag daal di guy gi mu ne daal maa ngi sant bu baax ci samay biir mbokk dinaa continuer nag di liggéey bu baax a baax ngir dellu si waat ci sama prochain combat nag nee na jamono jile teel na ñu wax ci mënuguma ci wax lu bari ñu ngi génne ci combat fa ñu daal toogaat daal xoolaat lu bare bari bu ñu ba tey ci ay kàddu moom moom di guy gi nag mu mel ni daal. Euh, moom euh, il aurait tout fait maanaam def na lépp loo xam ne moom na mën ngir mënoon a am ndam ci combat bu mel euh, yàgg na préparation bi duré na yàgg na lool te def na ci lépp loo xam ne moom la mënoon ngir gagner combat bi malheureusement nekkootoon en sa faveur am na ay ñaan il faut dire que nag moom daal lépp loo xam ne mënoon na ko def def na ko waaye daal sunu borom daal moo daal di def mbir mi demee nu nu mel. rumeur yi jëm nag wax ci lu jëm ci hospital yi jëm foofu ci hôpital Dalal Jàmm mu ne loolu dëgg la woon euh, ndax moom def na fa quatre fois parce que euh, dafa doon entraîner à fond ne nag euh, fa ñu xam ne tamit nag ci combat bi de dafa duré mu sax jëlee ci woon ak blessure waaye daal la mën a xam ne daal mooy wax ji daal mooy combat bi bëree nañu ko ci jàmm kii di Ada Fass yàlla may na ko ndam mu koy félicité bu baax a baax. Euh, jamono ji nag dees euh, toog analyse waat jàngal li ñu war a jàngat xool lu ñu war a soppi rek te jéem a jàll ci leneen moo fi sës làmb moom nii la tey da ngay am ndam ëllëg nga ñàkk loolu di kàddu yi ki nga xam ne moo di guy gi gannaaw bu ñàkkee rek digganteem ak kii di Ada Fass jërë ngeen jëf mbokk yi li moo doon xibaar yi ci bile vidéo yéen rek ca yeneen i vidéo lay doon bu ci àlante laataa la woy leen di like d'abonné ci chaîne chaîne ku dee gën ci page bi rek te abonné go noo ngi leen ñaan nga abonné activé sa cloche su ko defee rek lu dugal ci vidéo nga bokk si ñu ko njëkk a jot cant ak ngërëm ñeen na leen